naa la yaay sama xol yow rek laay xool dama laa la dalal ci li nga xamante ne mooy plateau ou Dakar Actu tey nag ñu ànd ci ak benn artiste bu nga xamante ne kenn dootu ko présenté ti ma daal di leen rek présenté ki nga xamante ne mooy Yves Niang nag xawoon na raar tuuti li nga xamante ne mooy scène musicale bi waaye dafa mel ñëwaat na ñëwaat na nag ak doole ndax daal nay génne benn clip bu nga xamante ne nii moom la ñëpp di coow fi mu ne nii ñu daal di koy dalal rek di ko bàyyi ngeen nuyoonteeg moom yéen téléspectateurs yu Dakar Actu yi Yves ñu ngi lay nuyu waaw sama jigéen maa ngi lay fay maa ngi kontaan vraiment ci teew ci parce que chaîne la boo xam ne vraiment ku mu maasal jamono la bàyyi nga xel dëgg fa yàlla ndax ku bëgg ay xibaar yu leer macha allah ku bëgg actualité foofu ngay dem kon bu ngeen ma fi invité la ma dul def rek mooy kontaan lay def waaw di la gërëm vraiment di nuyu waa équipe bi nga xam ni ñoom ngay liggéeyal waaw di nuyu sama xaalim ñang ñu ngi lay fay di la dalal jàmm ci si nga plateau Dakaractu bi waaye Yves comme ni ma ko waxee rek namoon nañ la nag ndax gëj nañu laa gis si li nga xamante ne mooy scène musicale bi Yves dañu la daan yëg ngay ngay ngay génn di toj di di rajaxee comme ni ñu koy waxee waaye dafa mel ni da xawoon a def benn pause waaye gis nañ ne it njëwaat bi daal dinay dal ci lan nga nekkoon ak li nga indi nii mooy lan waa pause bi dëgg la pause woon naa moom vraiment parce que ma nekkoon ci liggéey parce que liggéey bi taxoon ma pause moom mooy Euh, di di gëstu beneen façon musique parce que def nañ mbalax nit ñi xam nañu ci mbalax mais mbalax boo dee xool euh, euh, dafa dafa dafa voyagé wul doxul ay jéego yu bari man nag ak voix bi ma yor vraiment ñi ma déglu ñëpp chaque jour dañ may wax ni ma yow war nga def beneen façon musique sax bu dul mbalax ci loolu nag laa nekkoon di gëstu peut-être na mm-hmm. xaar bi yàgg na trop mais gëstu naa ci ba am ci beneen xam-xam boo xam ni vraiment foofu laa nekk di di di évoluer léegi. mais du tere nag kon mën nañu daal lu bees tax. waa Yves indil na leen lu bees sax liggéey bees ak album bu bees buy waaj a ñëw album boo xam ne variété la. variété la boo xam ne façon musique bu ne mi ngi ci mais du tere nag maa ngi def mbalax ba léegi parce que li ma génn nii boo dee xool afro mbalax la. parce que suñu seetee si jamono yi ñu passé gisoon nañu si yenn sites yi ñu ne Yves Niang nee na mu nekk nii mbalax bi euh, gëmatu ko maanaam mu ngi si leneen. Mm-hmm. mu mel ni que dañ ko tasaare woon si li nga xamante ne mooy médias yi loolu nu mu demee noonu. non non damay def gëm naa mbalax sax parce que ci laa débuté moom mooy sama culture mais dama nekk def beneen façon musique boo xam ne moom mooy dem ci festival mooy dem sur le plan international. parce que fii doo toog rek ci benn musique nga ne foofu nga yem ñun Sénégal dañ bëgg mbalax c'est normal parce que mbalax boo ko tegee rek gars yi dañ ko fecc ñun bi ñuy ngénte mbalax lañ tegoon mais boo voyagé voyagé waat dem ci ay dëkk dem ci ay chaînes yu mag da ngay xam ne war nga mën a def beneen musique boo xam ne du mbalax c'est vrai que mbalax man nga ko def mais mën nga def variété def ay acoustique def ay afro xam nga def afro mandeng def façon boo xam ne ci ngay gëna mëna mën sur le plan international ci loolu la nek nak quoi. kon mën nañu nek Yves Niang bi nga li nga xamante indi nako fi mu nek ni nek na benen façon bu nga xamantene à part mbalax dinañ ci retrouver yenen yenen non bien sûr dinañ ci retrouver leneen. Mhm. loolu moom li liy génn 2020 bi moom dinañ ci retrouver leneen déjà commencé naa ko parce que immigration clandestin way na ci morceau bu doy war bo xamni vraiment génnagul mais ñi ko commencé gis ci sud bi rek vraiment dañ ko apprécier. bëgg fa yàlla waaw. Uh-huh. léegi nag Yves ñu daal di rek xuus tuuti waxtaan ci li nga xamante ne mooy sa relation yi nga am ak artistes sénégalais yi. Hmm. gis nañu ne que ay temps euh, xawoon nga am tuuti lii ak Pape Diouf euh, mu nekkoon fii loo xamante ne nii dañ ko doon waxantu ci suuf ak yooyu ndax mën nañ see am lu ñu gën a leer. dégguma bu baax. maanaam ay temps gisoon nañu ne que da nga amoon benn rela benn rapport boo xamante ne c'est pas Fluide ak ki nga xamante ne mooy artiste Pape Diouf. Mhm. Euh, ñu gis ne it euh, dañu nekk léegi Yves Niang dafa gën a féete ci côté Wally. Mhm. Euh, loolu lañ bëggoon tuuti nga leeralal ñu ci. waaw Pape sama frère la sama xarit la ñoo bokk banlieue bi amuñu benn problème vraiment leen rek laa ko xawoon mere te wax naa ko Sénégal gépp parce que munoo ànd ak nit ki vraiment ngeen bokk gox dëkk ci banlieue bi ànd di jugandoo di xàccandoo di dóorandoo vraiment muy def berseem boole match yi wax dëgg fa yàlla ñu bokkoon di ci xeex ma xeex ci xeex bu rëy defal ko morceau ñu ñu def plateau yu rëy comprendre nga dugg fu sori wax dëgg fa yàlla mais bi bërsi bi bërsi bi jotee dafa am benn benn benn wor bu ci am ko quoi xam nga benn wor bu ñu ci def parce que nit ki doo bàyyi ba 2 heures matin nga woo ko ni ko booy suba ngay jot sa visa ma dem ba foofu ànd ak artistes yu bëri ànd ak mbër yu bëri ñu dem ba foofu vraiment ma yegg ñu ma yow sa sa sa tur sax bokk ci liste bi ah loolu rafetul waaw loolu la Pape Diouf def mhm. comprendre nga mais nit ki dañ ni gor ya mom sa bop ba nga waxagul mais bo xasse wax moomata sa bop comprendre nga sa nawle so ànd ak moom ngay liggey ak mom vraiment ngeen bok gox bok fi ngeen dekk muy pitini bok ginaaw ray su ngeen waxate dara war nga ko respecter ndax man namuma voyage dem na fu ne si comprendre nga mais so promesse sa sa xarit sa doomu day ngeen bok banlieue bok du jugandoo koku soko ne vraiment plateau bi invité na la ci xam nga sa visa ding ko jot bu subaa deux deux heures du matin la ma woo ni ma bu subaa ngay déposé dix heures di nga jot sa visa ma dem ñu may nekkoo sax ci liste bi loolu dafa ñaaw daal xam nga rafetul waaw. ñu gis ni ko aussi Waly doon na ko nga xamante ne léegi moom nga daal di si rëkk ngeen di nekk di liggéey doo nekk ay frères yoo xamante ne fi mu ne ñëpp teg nañ ci seen bët loolu aussi naka nañ koy expliquer Sénégalais yi. non Waly sama doom la sama Waly sama doom la duma ma wax sax sama xarit la Waly sama doom la wax booy papaam sama grand frère la ñoom Ousmane Seck ak magam Ousmane Seck. papaam moo doon ànd ak sama mag may sa ñaar ñoom Mapenda ñoom Kéba ñun ñoo bokk Pikine ñoo bokk suñu bokk askan wi nekk ay géwal nag xam nga vraiment mu fonk ma fu ma fekk jox ma cër ren mu ñëw indil ma xar mu rëy tabaski bi jox ma am naa am naa ko yàgg naa rey sama xar. Ah bi may rey rey sama xar tabaski. Mhm. boobu amaguma sa soxna du dëgg. mu def geste bu mag ñëw indil ma ne ma père lii yow laa ko jox loolu cër la mhm. parce que ku dul joxe cër doo am cër. boo gisee ñun ñu am yenn cër yi parce que suñu mag jox nañ leen cër mais ndaw bu fekkee da nga dëgmal yoon te njëkkewu ko ci man barki dem ba gis nañ benn handicapé 4-4 la ko jox parce que dafay dafay dafay dafay dafay def ci social waaw mi ngi noonu te man lu waay def social rek dama ciy ànd ak yoon mais loolu yëpp dëgg la mais ndax à part Wally Seck ak problème bi nga xamante ne am nga ko Pape Diouf ndax yow da ngay faral di am ay relation yoo xamante ne fluide na si diggante yeneen artistes yi nga xamante ne ñooy euh, artistes sénégalais yeneen yi bay faral di def ak ñoom ay duo ak nekk di liggéeyandoo ak ñoom wala ngay prévoir liggéey ak ñoom. waa si si man artistes yi nekk Sénégal fii parce que ñëpp samay waay lañ ñëpp samay gain lañ xale yi sañu samay lañ bu dee mag ñi ma tolloo jamono ñëpp aw xaar ma yàlla xam nga bu dee mag ñi respecté naa leen jox naa leen dañuy ñëw samay soirée damay dem seen soirée su ma demee chaîne Youssou Ndour lu mu xat-xatal daf may jox micro Thione Seck noonu keneen ak keneen noonu xale yu ndaw yi tey jii boo dee xool ay Sidi Diop ay Momo Dieng ay Abou Cubolo ñoom Thiar Seck tey jii man ak dem si ndongo ndongoloo lan doon roy du ñuy seetaan si du ñu bëggee xam nga ba tax tey ñu nekk ay artistes kon waaw noonu la demee daal ñëpp samay rakk lañ bu ñu dellu tuuti rek daal di waxtaan ci li nga xam ne mooy album bu bees bi nga xam ne yaa ngi koy waajal lii lancé ngay waajal it li nga xamante ne mooy grand théâtre bi ak yooyu euh, album bu bees bi lan lañ ci mën a xaar. waaw album bi am na ay morceaux yu yu doy waar. vraiment maa ngi ci liggéey ak ay kàngam maa ngi def morso yoo xam ni ay musique yu am solo la yuy yeete ay musique yu internationale yoo xam musique yoo xam ne incha allah dina voyage parce que nit ki buñ la gëjee dégg wala ñu gëj la gis. sooy ñëw war nga indil bees waroo indi li fi nekkoon rek xam nga uh-huh. ba tax na gëstu naa ci façon musique yu bëri yoo xam ne incha allah bientôt daal ci année bi nii bu sama Sorano bi passé le 5 février album bi dina génn uh-huh. ñu ngi pare def benn événement bu rëy ci avril bi incha allah bo xamne bu bokkut ak Sorano bi ndax album bobu non amna ci ay duo yo xamne yank yaa bokk ak artiste sénégalais wala artiste international yi wa amna morceau yo xamne ne jot naa ko def mais yima defagum ni amul ay duo mais amna ay ay musiciens yo xamne ne ay sénégalais yu ci participer vraiment ay nigériens ñi ngi ci ay congolais ñi ngi ci ñu bari ñi ngi ci liggéey ak man dal yaa ngi may wax nigérien mais it euh, li nga xamante ne mooy style nigérien yi dafa mel ni que léegi dafa dugg ci li nga xamante ne mooy musique mbalax bi ñu si bëri léegi dañoo def ouverture boobu noonu di laalaale ci côté musique nigérienne bi ndax moom fi mu nekk ni mel na ni moo dominé est-ce que mën nañu xaar loolu aussi ci si si sa album bi waaw def naa ci benn morceau bu tudd Thiès Thiès Thiès Pape Birahim nag moom daa gaaw rek génn Thiès man Pape Birahim xaw ma maa déglu xaw ma doon demee noonu. <laughs> Mbado. def naa morceau boo xam ne génnagul maa ngi nii di waaj a tourné clip ma taa sama télé rek gis ñu naan ko dal. <laughs> da rek la. Mbado da bokk fil bi. waaw mais xam naa loolu dañoo bo dañ dañ daje rek. da ngeen daje waaw dañ daje rek vraiment def naa ci style nigérien benn morceau bu garaaw boo xam ni. clip bi bientôt dinañ ko tourné dina génn nii xëy na ana avant avant Sorano bi le 5 février. kon xanaa da ñu ci may tuuti rek ñu ci tuuti ma na de. <laughs> Thiès ñu ci tuuti rek ñu jël. <laughs> ñaw leen ñu ànd béegi maay bii bi ñu ànd fooyi sama mbëggeel ci yow dafa sori. man ni ma la bëggee dafa sax bari please my baby don't worry mbëggeel du jaay amul ku nekk ki nga free please my baby come to me Jarna na nu soor suñu Just, just, cas cas pa mm. naa maglal. gaañ Pape Birahim rek lal <laughs> kon Pape Birahim dégg na la xam naa rek après da ngeen di waxtaan ba jubóo ndax bi moom cas bi rek <laughs> yéen a ko bokk même cas la mais variation wayi bokkul de ko <laughs> ñoom sama rakk lañ fi ñu génn fu may génn du bokk. ah kon baax na di ngeen déggoo ndax yéen a bokk ma lax. non Pape Ibrahima sama rakk dama koy tooñ rek. <laughs> léegi ñu dem ci li nga xamante ne mooy euh, album bu bees bi it la ñuy continuer di nekk clip yi euh, ki morceau yi nga xamante ne daal di nga ko si def à part cas bi yeneen ak yeneen ak yeneen ndax mën nga ñu see rek daal di informer gën ñu gën si am information xam sénégalais xam ci lan la ñuy lan la ñuy waajee jot si. en tout cas dinañ gis si Yves Niang beneen style bu ñu woon. parce que boo dee xool fël falaale bi euh, afro mbalax la kestes bi ma la wayal ni estul nigérien la immigration clandestin boo gisee ma commencé ma ma am fitu lim morceau yi parce que morceau yi pare na comprends nga donte bu ko nit wayee ñu niroo sax pare na pare parce que def naa ci immigration clandestin ku ne gis na fan yi passé vraiment suñu rakk yi dugg ci géej dugg ci gaal gi mhm, daanu vraiment ma def ci mhm. morceau bu garaaw boo xam ne bien avant accident bi am ci laa ci laa xam nga. Mhm. commencé naa ci gën ay ay extrait vraiment gars yi di ko bëggee am na benn morceau bu ma woy guddi guddi afro mandeng laa ko woy parce que guddi li ciy xew dafa bëri mais laalul mbalax afro mandeng laa ko woy ñemewu ma guddi ñemewu ma guddi dafa am borom xoolal li xew ci guddi xoolal li xew ci guddi. xoolal li xew guddee guddi dafa am borom xam man daaw ma waye mhm. ma daan ñëw rek door jaalo kumba joko dee xawoon kumba joko ramata kumba joko ak yaay ju baax moo nopp boobu la ma nit ñi xamee mhm. mais dama dama cambiar l'espagnol di wax cambiar dama cambiar il génn ah, feneen waaw changé génn feneen <laughs> ah, maa ngi moo ngi noonu Yves Niang daal dina la si may tuuti euh, li nga xamante ne mooy album bu nga xam ne moom lay waaj a génnee kon nag euh, xaar leen ci ay nouveauté yoo xamante ne ni tey mën nañ ne diversifié na li nga xamante ne foofu la mënee muy woy bi daal dinay laal ci afro bi daal di laal si li nga xamante ne mooy musique mondaine ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii album bi su génnee incha allah di ngeen si am lu leen leer dañuy daal di rek euh, dellu si yow Yves daal di waxtaan si li nga xam ne aussi mooy musique en général surtout mm. style mbalax bi nga xamantene ni gis nañ ne que léegi mu ngi gën a évoluer mm. léegi da ngay gis ni boole ko comme ni nga def boole ko ak yeneen ah, mm. daal di koy marier ba nga xamantene dañuy am yenen sonorité yu bees yu yu neex yo xamantene c'est accessible ba pare dina génn dina dina évoluer à l'échelle mondiale quoi na ngay gisee tolluwaay mbalax fofu waaw tolluwaay bi moy contente rek bo boo xol nouvelle génération bi ñew lepp ñi ngi ñu ngi changer ñi ngi def ben façon musique parce que musique mo tollu fofu léegi musique tollatul fii nga yanu ay musiciens yu bëri di wër ak ñoom ku ne yor gitaaram ku ne yor clavier ñëw toog ci studio bi ku ne rëng-rëngi parce que après sonorité yooyu géej daf lay sonal musique da ko war a déglu muy dugg sa xol en même temps xam nga vraiment nga foofu la musique toll parce que boo lay xool tey jii stars yi gën a mag ci àdduna bi seeni morceaux deux personnes ñoo koy defar ñooy toog defar deux morceaux composé nga ñëw teg ci beat bu nice xam nga nga ñëw way ci def ci ay harmonie boo gërëm tas dëkk bi mhm. musique foofu la toll léegi il faut que musiciens yi ñu yeewu foofu xam nga yanu guitare yanu xal ak sabar fii dóor fii rëng rëng rëng waa ji way tamakat bi dóor c'est vrai dina neex mais musique dafa dafa jar changer uh-huh. parce que yenn plateau yu mag yi boo fa demee salle bi lu mu rëy rëy rëy rëy rëy trois musiciens quatre musiciens yi nga gis ñu toog di jouer foofu la musique toll uh-huh. man foofu laa nekk léegi uh-huh. waaye Yves à li nga xamante ne mooy way bi gis nañu ne que Yves dafa nekk di yëngu si yeneen business. waaw Yves ci lan nga nekk temps yi à part bi. jaay yëre rek jaay <laughs>

man xunti man laa woon du dëgg. xanaa way bee doxatul. way bi dox na doxul moo tax may ja may jaay yére. xanaa pirate bee leen sonal. way bi dox na doxul moo tax may jaay yére léegi. pirate bi léegi. évolué na xam nga léegi pirate bi léegi kenn toppatoo ko parce que nouvelle technologie bi léegi xam nga léegi kii léegi kenn mënu daw pirate. mais am na ay plateforme yu fi nekk yoo xam ne say musique boo ko defaree mën nga ko yóbbu jox leen ko ñoom ñu koy jaay ci internet bi xam nga. duñ ci am sa wërsëg. waaw comme pirate bi xeex nañ ko ba mënatuñ ko xeex parce que fi fi àdduna toll la

parce que li tax may def yooyu yëpp dafa nekk ci man man presque nekk naa Sandaga di fa jaay ay 10 ans ma fay jaay fecc naa bale 6 ans parce que danseur la mhm. waaw xam nga sama Yves bi ñu may wooyu ni bi may fecc fanki la nekk ci xumbal di fecc man a fecc loolu ñu may wooyu Yves ñaar comprendre nga ma nekkoon bale Moussa Paté di fecc di fecc bale dama man fecc bale yaa ngi dégg mujj gi ma dugg ci simb yi jàng wayi simb jaar dugg ci ngénte yi jaar ci kasak yi jaar ci mbappat yi jaar ci lépp léegi aar boobu nekk ci man nag moo tax ma exploité ko dama dem ba benn producteur gis ma jox ma benn film boo xam man maay acteur principal bi muy Alliance d'or ñu ngi koy tourné bientôt dina génn incha allah kon yi may def bëri na xam nga mhm. boo gisee may dugg ci yooyu yëpp damay toog des fois gis benn artiste ñu koy ketal mu feebar wala fa mu dëkk ñu koy génne. xam nga ma yoon la tey jii artiste xippi am na benn jour benn artiste goo xam ne artiste dañuy dem am seen benn cinq cent mille. duñ ci jënd benn micro. mais lépp la ñuy jënd yëre solo ko mais duñ jënd benn micro bu cent mille franc wala deux cent mille franc xam nga. topp àdduna bi rek mu neex. solu neex na dund neex na mais nga sóoraale comprendre nga. ëllëg boo demee ba dem retraite wala say doom màgg nga mën leen jàppale. moo tax aar bi rek doyul il faut que artiste yi gëstu dem xool leneen def leneen soo amee xaalis nga investir ko feneen Yves Niang foofu la toll Euh, kon nag euh, leer na euh, dëgg la it li mu wax doon na loo xamante ne réalité la si li nga xam ne mooy réew mi artistes yu si bëri dañu demee ba nga xamante ne dañuy bëgg a magal dañuy dem ba am problème yenn problème yi du ñu mën a prendre en charge seen bopp du ñu mën a gérer seen bopp yu bari te pourtant ay jamono nekkoon nañ fi ay stars yoo xamante ne ñëpp daan nañ leen a ràññee ah, prouvé woon nañ fi mu nekk nag benn problème de gestion ak benn problème management je peux xamante ne moom lay nekk ci seen carrière rek ba nga xam ne finalité xamantene mom mo len di meuna couvriral seen don sa arrière euh, Yves nak don ci leral li nga xamantene moy moromu artiste mi di len wo nak ngir ñu def prise de conscience euh dal di yewu dal di commencer di épargner mais ñu def seen propre business parce que gis nañ ko fi ah dans le monde entier artiste bu mag bu ne am nga si ay am nga yenen business yo xamne dal di nga ci dugg pour élargir voilà bu nga xamantene ni bes bo démé ba pare ci mbirum art bi tamit di nga am lo xamantene ni di nga ci suturloo voilà di nga ci ba nga xam légui léegi say ko doo leen am benn problème mu nekk benn cri de cœur boo xamante Yves daal dina koy euh, lancé ci milieu bi nga xamante ne lay évoluer muy milieu artistique bi di si woo bépp moromam kon Yves rek dañ lay bàyyi xanaa nga daal di tàggatoo ak mbokku internetu Dakar Actu yi. waaw li may tàggatoo rek mooy rendez-vous mooy joxe le 5 février Sorano. Mhm. Yves Niang mi Sorano le 5 février 19h lay commencé incha allah jeex 1h du matin wala 2h di ci ànd ak Dakar Actu. ndax ku bëgg a def lu neex wala bëgg def lu siiw. Hmm. vraiment ñëwal ci ñoom. seeni plateau naa sa seeni caméra set na am na am na caméra yu bëri may gis fii dafa dafa poussière <laughs> mais yéen ay caméra yu set yëpp ngeen am. Hmm. vraiment di def ba mu baax. Hmm. vraiment bëgg liggéey may remercier sama rak sama xarit muy xaarim ñu bokk baay muy liggéey fii nekk jàmbaar. léeg-léeg ma dugg ci benn fii benn événement rek gestu rek gis ko mu yor caméra xam nga. <laughs> waaw kontaan ci ñëw leen def ko direct nag. incha allah maa ngi lancé appel ñëw leen def ko direct. الله الله jox ko waa àdduna dañuy daldi rek daldi do ratal ben léegi ben acapella bu neex ci yi nga xamne mom ngay waji génne. wa fël falaale bi rek. wa fëlal kon. sané kul kañu fël falaale. my baby kañu ñu fël falaale. sànneekul ba mi moom ñu fël falaale. Zeyna Jida ñu fël falaale. sànneekul ba mi moom ñu fël-fëlaale tabara sama chéri kaay ñu fël-fëlaale ragalu ma loolu daw ma loolu yow ni ma bëggee noonu laa la bëggee xol bi yaa ko moom jëmm ji yaa ko moom man bëgg naa la mu bari doole artiste yi liggéey leen naa leen de 2020 bi yéen ñëpp naa leen rek leer na artistes yi pare leen te xam Yves ñëw na ak doole gu bari bari bari di leen jox rek dig dajé ci benen plateau spécial fi ci Dakar Actu d'ici là portez-vous bien. ragaluma loolu dawuma loolu yow ni nga ma bëggee noonu laa la bëggee xol bi ya ko moom te mujj yaa ko moom man bëgg na la ba mu bëri.